tey jébbal naa leen kayit buy wax ñaata titre fi am lii wag lii lii wag sur le secteur en fait loolu secteur bi nit ñi xam nañ ko la diagnostic sectoriel a été fait. Mm-hmm. c'est clair et net. Mm-hmm. xam nañu yan problème ñoo am ci secteur bi ak lan nañ war def parce que def nañ ay visites site minier. Mm-hmm. Thiès def nañ fa ñetti jours de visite dem nañ visiter carrières yi dem nañ visiter ICS dem nañ visiter GCO te vet visite des na dem nañu maatam mais dem nañu Kédougou te bu ñuy wax les principales zones minières du pays foofu la man mii dem naa Bambey. donc bu ñuy wax les principales régions minières du pays la région de Thiès. la région, la région de Kédougou la région de Matam. donc def nañu diagnostic sectoriel boo xam ne xëcc nañu këyit yi sëgg ci dossiers yi waaye wàcc nañu si terrain bi. pour xam waaye li ci des mooy comme li nga wax li siq li état bi siq ak yeneen compagnie mm-hmm. ay contrat la. waaw am na benn commission boo xam ne yëg ngeen ne. ci euh, premier ministre teg na ko parce que conseil des ministres nañ ko wax. Mm-hmm. président jox instruction le premier ministre Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye bi mu joxee instruction. mu institué par arrêté donc une commission d'examen des contrats conclue dans les secteurs stratégiques donc c'est pas uniquement le secteur pétrolier le secteur minier et donc ni ñu ci war ñun ci secteur minier <laughs> mais ñu ngi ciy liggéey duñ ci communiquer nag lépp lu ñu war a def ci wu Sénégal moom la ñu nekk di def auditer contrat yi parce que foofu on parle de l' aspect contractuel je l'ai dit l' aspect mm-hmm. moo gën a yaatu mais l' aspect contractuel ñu ngi nekk di ci liggéey ñu ci tollee lépp lu ci euh, sénégalais yi war a xam dinañ ko xam par les autorités habilitées dafa nekkoon mit ci ñun wàllu mine ak pétrole daawuñ toog sax di ko waxtaanee énergie mais fi toll nii xëy na euh, réew mi moo ko laaj tolluwaay bi foofu dañ leen di woo gars yi di wax wax wax ñii liggéeyuñu ñii mënuñu booy jox dégg naa ñu ay ñoo xam ne man bu ñu xëyee man rek dañuy attaqué ak Jean Michel bu ñu waxee ñu ne booy njox mënuñu. waa ah. mais. saay parce yow moom sa bos moom moo moo gën a gaaw ndax dañ ne comment. un greffier euh, greffier ñu jël ko jox ko wàllu miin greffier yi ma xam Sénégal nee naa am na ñoo xam boo leen joxee réew ñu yor ko. tellement brillant compétent travailleur des gens modèles des fonctionnaires modèles mais loolu duma ci taxaw am na emploi yu ñu gën a ñàkk wekk ci ci ci réew ci privé comme ci public ay nit yor ko tabax ay réew. sénégalais ñoo complexé bon du ma wax sénégalais mais ñenn ci ay sénégalais bon ñenn ñu po wax parce que sénégalais yi cinquante quatre pour cent yi ku ko jox jeune bu am quarante quatre ans ana borom CV yu gudd yi quinze rek la liggéey impôt ñu jox ko réew kon sénégalais yi ñoom moom démystifier nañ yooyu waaye xam nga lu am solo lan moo solo est-ce que li ñu dénk bu ñu taxawee wax dinañ ne mën nañ ko wala mënuñu ko wala xam nañ ko wala xamuñu ko mhm. ñaareel bi mooy waay waay jarul coow dénk nañ nañu doxal ba ci kanam. Mhm, ñu xool les sénégalais vont voir les acteurs du secteur minier vont voir. Mhm. donc loolu moom vraiment du debaa ñun ñu ngi leen invité ci débat boo xam ne ñun xamuñu wala mënuñu nañ ñëw taxaw fii ñu wax ñu li ñuy wax ni taxawut. ñu démontrer ko argument par argument chiffre par chiffre fait par fait texte par texte idée par idée ñu toog ñu waxtaan secteur minier ba mu ba mu jeex l' aspect géopolitique jëlee ko ci àdduna bi ba wàccee ko ci laspe sawaay de la communauté locale sa relation avec la mine ñu jël ko point par point ñu waxtaan est-ce que li ñu dénk jàngoon nañ ko bi ñu ko waree jàng jàng nañ ko waaye est-ce que gëstu nañu ko avant sax ñi ñi ñu dénk est-ce que bi ñu ko dénkee ba léegi toog nañ bañoon a yam ne ci ne xam nañ pour gën koo peeg waaye est-ce que ñu ngi liggéey pour intérêt Sénégal loolu moo am solo te loolu les prochains vraiment les faits son sacrés le commentaire merci beaucoup hein, euh, du côté de la régie ñu ngi jégalu baax baax ci yenn dox-dox yoo xamante ne nii donc yu yu àndul ak suñu volonté la ñu ngi ci jégalu baax a baax mais ñu ngi woon ci ponk boo xamante ne ni daanaka nous nous sommes à la fin de l'émission c'est pour boucler la boucle avec euh, l'invité du jour maître Ngagne Demba Touré donc euh, di directeur général SOMISEN nekk cadre PASTEF waaye tamit nekk ki jiite JPS alors JPS fi mu toll nii naka la fas yéene aborder li nga xamante ne mooy législative yi ñu jëm rek Ngagne Demba waaw mais yow xam nga ne GPS moom gars yi dañuy wax ne du sama wax mooy fair de lance parti bi mm. et loolu c'est pas sama actif en fait c'est depuis l'ancien bureau mm. ñëpp xam nañ ne bu ñuy wax euh, Pastef jeunesse bi nañuy wax et donc GPS euh, moom amul benn échéance buy am ci parti bi wala benn benn phase bi ñu toll ci politique moo xam phase su résistance la woon moo xam phase su conception projet bi la woon. moo xam phase mise en œuvre projet bi tey exécution bi lu dul ne JPS day am un rôle fondamental donc aujourd'hui je profite de cette tribune pour adresser un message à tous les jeunes du parti euh, di leen wax ni bu bu projet bi yegsee fii ginnaaw yàlla ñun am nañ un rôle fondamental un rôle boo xam ne bu essentiel buñ ci contribuer la. kon c'est le moment aussi de continuer ce travail et le président Ousmane Sonko yàgg na ko wax yën ndaw ñi ci yéen laay compter mhm. loolu nag dafa nekk lu am solo loo xam ne bu ñu mus a dëñ ci nekk les pionniers mhm. et ay projet nag boo nekkee projet boo nekkee pionnier am nag da ngay liggéey de façon désintéressée mhm, et loolu mooy discours bu ñu leen yàgg tenir moom nañ teniroon bi ñu yegsee ci pouvoir bi au 9 juin même au Grand Théâtre et moom nañ continuer di di di di tenir ci législative yi ñu jëm liggéey bi ñu war a def c'est un travail de terrain au-delà des grandes des grands événements politiques comme meeting bi ñu amaloon keroog comme meeting yi am ci pole développement yi comme caravane yi am na un travail essentiel de porte à porte et de visite de proximité qu'il faut initier à la base et ça se fait à la base moi je ne que coordonner à travers les coordinations et les sections mais à travers aussi les sections universitaires et les gens vont faire leur travail naturellement parce que moom xam nañu élection damay wax ne mm. on a une expérience électorale avérée parce que deux locales hmm? Mm. non pas deux je pense que benn élection locale la ñaari élection législative ñaari élection présidentielle donc cinq élections moom wax de vraiment parce que moom am nañ maturité politique am nañu appareil bi li des mooy engagement bi ñu continuer redoubler d'efforts il ne s'agit pas d'avoir une majorité simple comme le président Ousmane Sonko lu mu koy wax mais une majorité absolue qualifiée mais une majorité symbolique parce que une majorité qualifiée mooy am nga 99 loo bëgg a def di nga ko def à travers l' assemblée mooy tu as trois cinquièmes des députés mm. soxlawuñu loolu kese dañu soxla mooy une majorité de au moins 145 députés pour wan adduna bi ci histoire politique Sénégal ne lii mu ngi doog a am parce que sénégalais yi dañu jox bopp parce que liñ waxoon nañ ko fii élection dañ koy gagné premier tour gars yi nekk fi di yuuxu loolu mënul nekk am na wala amut donc bu ñu ko bëggee mun nañu am une majorité je ne dirais pas confortable ou écrasante mais une majorité extraordinaire boo xam musul am ci histoire politique u Sénégal pour ñu jàngalaat adduna bi ne sénégalais yi ñu ngi derrière leur président sénégalais yi ñu ngi derrière leur premier ministre pour ñu mun def réforme yi war. alors en trois minutes bu ci nekk une minute parce que internautes yi ñoo ko laajte te bëgg naa tamit nga joxe sa xalaat bu mënee nekk bi ci jiitu mooy eh, nee ñu en tant que juriste ndax li Bougane Gueye daan di def. mooy ñu tuddee ko mel ni ku déggalul agent bi doon wax ak moom en quelque sorte ndax li mu def euh, keneen ku ko def itam dañ koy tëj juridiquement parlant. bon tout d'abord sénégalais la donc euh, ñu ngi koy ñaanal fu mu nekk noonu mu jógee fa parce que bon yéene ko kenn euh, te ñun def nañ kaso nag <laughs> ñaareel bi mooy di wax ne fond dossier mënuma cee dugg. parce que ah. yoon la l'affaire est pendante. donc il faut quand même nangul justice indépendance am. d'accord. mais dans la forme du dossier man li may rafetlu mooy ay forces de défense et de sécurité yu jël seen responsabilité mm-hmm. un procureur de la république buy jël responsabilité waaye li ci ëpp solo. li ci ëpp solo mooy justice bu tëddee jaaxaanaay. Mm-hmm. parce que bu influence amoon le président Bassirou Diomaye Faye post Facebook la def loo xam ne ça relève de la flagrance bu fekkee da nga koy topp ne am na leer na Cheikh Oumar Diagne ci télé la taxaw wax ñooñu ñëpp ñu jàpp leen leen yóbbu instruction. bu fekkoon ne am na ku bëggoon a laxasu ci dossier pour jaay nit doole ah non am nañu moyen pour di ko tëj ko six mois yoo xamante ne mu du du génn. Hmm. mais amut procédure de flagrance c'est une procédure simplifiée procédure bu gaaw la boo xamante ne dinañ ko ci gaaw àtte. Hmm. li ñu ñaan yàlla mooy mu dellu si njabootam loolu la ñu ñaanal bépp sénégalais bu nekk ci kaso. waaye li ci wane mooy yoon bu moom boppam parce que la le mode de règlement qui a été usité par le montre encore une fois que la justice de ce pays est devenue indépendante. est devenue indépendante beneen bi mooy politiquement parlant ndax euh, internet muy laajte mu ne ndax li Barthélemy wax tey jii ci ay kàddu ca Tambacounda ndax lu xel mën a nangu la. lan la wax. tey jii dañ doon da dugg ñu ne Sonko yee je sais pas Sonko Sonko. Euh, ah dagg mu waaw mu mu tifaar gars yi mu xorom leen ko waaw yow yaa ngi yow mënoo ko sax wax. xam nga yow wax yow génne wax ji. mais yow ñi ma woo wax sax li mu wax nu ñu koy nu ñu koy tuddee. Mhm. loolu mooy wax jooju ñaaw na mais nag bon yoo xam nga am na acteur politique sénégalais yoo xam ne nekkoon nañ suñu allié waaye ñëpp xam nañ ne ils ont l'injure à la bouche saaga ak xeex ak dooraate bu jeexee ci politique ñoom amatuñ ñu mën a amul mbenn qualification da nga leen mës a dégg ñuy wax xam-xam collectivité territoriale yi ñu mës a jiite da nga leen a dégg ñu yor ko ci yorin bu sell présenté ay projet yu am solo musul am ñooñu lu ñu xam rek nañ nekk di def di ku ne moom la nga nàmp ngay gàll aloo jàngul doo ko tari ñoom li ñu jàng nañuy tari tàmm nañ loolu mais ñun ñu ngeen woo ci débat wu xam-xam tegaat curseur fu mu war a nekk c'est important <laughs> jërëjëf Marie Nguer Maître Ngagne Demba Touré loo <laughs> mais maa ngi lay remercier ci émission bi donc euh, ci dalal bi kontaan naa ci lool c'est vrai que lundi moom jour ouvrable la day bëri day bëri ay ay ay ay ay yëngu-yëngu waaye nag bon c'est normal ak after work ñu mun toog waxtaan ak mm. sénégalais yi donc euh, ñu ngi rafetlu liggéey bi ngay def liggéey bu am solo la quand même ñu ngi lay suivre di rafetlu professionnalisme bi mais di rafetlu équipe bi fi nekk yëpp donc di leen nuyu am nañ ci ay xarit <laughs> ak ay soppe <laughs> ñu ngi leen di remercier bu baax a baax <laughs> di rafetlu seen taxawaay di leen wax ñu ko poursuivre ci loolu pour que l'œuvre collective de construction de la nation ku nekk apporte ci sa pierre pour Sénégal jëm kanam incha allah. c'est yow tamit ci disponibilité bi ak itam bon xarañte gi ci wàllu tontu yi ñu leen di ci laaj yi ñu lay tegal ci table bi nga tontu ci jërëjëf merci beaucoup en tout cas euh, donc amuñ safay ci euh, déplacement bi ñëw toog ngir waxtaan ak ñun waxtaan important yéen tamit yéen sénégalais yi suivre moo xam ngeen nekk ci réew mi baa ngeen nekk ci biti réew cant ak ngërëm ñeel na leen donc euh, di gërëm bu baax a baax waa régie ñoom gi def nañ ci coono gu bëri nag ngir mun ñoo mën a wax yéen tamit ngeen ñuy teewlu euh, je citer tuuti jigéen bu mën góor donc prompt rétablissement moom moom xaritu gaay la donc moom ak Yankoba Yankoba Badji sama joolaa bi maa ngi leen di nuyu Sekou donc du côté Ismaïla ñoom Malick yéen ñëpp bref Aziz